benn bi nee na man ak yàlla rek la aw ma duraa wax ko ci kaw suuf ëllëg rek la koy nit di xam nee na beneen bi julli la nee beneen bi julli la beneen bi nag ñeneen la ko sédd moo tax fa awxa ila abdi ma awxa ñett rek yu ko yàlla wax mais beneen ba nga xam ne des na ëllëg yàlla ne ëllëg rek ngeen koy xam loola maarifa boobu nee kenn mënu cee wax ci ci ma ci yonent bi ci loolu waaw wa innaha sanatakallamu an shamsil risala dafa am ñaar yum séddoo moom yonent bi shamsu risala shamsu nubuwa ak shamsu risala bu dee ci shamsu nag nubuwa bi moo ci xaatim bi waaye mooy jant bi mooy jant bi nga xam ne moo génn ay téeñeeram ba vingt 124 mille yépp génn ci mais li nekk ci digg jant bi lan la boo koy ah. kon waaw kon 124 yi ñooy téeñeer yi 124 mille yi ah. ñooy téeñeer yi sànneeku yi muy seen nubuwa ma wax la ne nubuwa dina am yonent bu ko donn waaye amul audace am risaala waaw ah. moo tax nubuwa ak risaala bokkuñ boo boo boo nekkee annabi yàlla nee na telex yiy bàyyeekoo ci xëyb yépp dinga ko xam li bàyyeekoo xëyb ca lawxul mahfuz ca borom ba daa xam yépp waaye doo am odaas ne yàlla nee na nangam yàlla nee na nangam doo ko am audace wax ko waaye bu dee risaala nga yor nag ba pare yor nubuwa bi nee na da am fit taxaw ci kanam mbooloo mi ne sama borom nee na falyabudu rabba hadha al bayt jaamul leen borom néeg bi kooko dafa yor risaala nee na bu dee nubuwa shamsu bo mooy yénti yàlla muhammad moo tax te yemu ci xaatimil anbiyaay gis nga nga ñëw ci risaala wa imaamul mursalin ki mujjee ba pare nekk njiit naa dina jaaxal ñépp ma lay wan ne yàlla yonent bi rek la sopp waaw nee na ñin yónni ñépp boo leen dajalee moo mujjee ñëw te mooy seen patron bi bi ngay xam ne yonent bi rek amul amul moroom yonent bu ne bi mu amee problème nga dégg góor gu tedd gi wax ko Cheikhul Hadji Malick ci bihi bihim yéeya adam bi mu amee problème bihi taabal ilaahi abina problème bi ñëw xamul fi si fi muy defaree situation bi mu delluwaat ci yonent yàlla Muhammad nooxi nag ñoom ñépp kenn ku ne fa nga dem delluwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni kon yonent yi noonu lañuy demee ba mu ci waxaat beneen mu ne mooy chamsu risala chamsu bopp moom it mooy chamsul hidaaya moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam njub yonent mooy njobbaxtal la in la yàlla wax ci alquran tahtadu ne na buñ ko toppee moom yonent bi jub sallallahu alayhi te yàlla bi mu koy tagg ci lan la ko taggee bàyyi na fi alal bàyyi fi njaboot bàyyi fi sañse bàyyi fi neex làmmi waaye da ko xool xam ne kii nag jukkoom yemul ak kenn moom la imaam wax sànq ci ba muy wax ne jukko yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu kenn ku ne bu bu demee gàmm bu mu dem jël fa benn jukko yonent bi demal fukki gàmm te yonent bi nee na boo amee ci man benn jukko doy na sëg mais fukki gàmm boo ko fekkee gàmm bu ne nga jël benn benn jukko yonent bi dund ko ba at mi ñëwaat nga xool in tutiuhu tahtadu buñ ko toppee moom rasulallah jub moo tax moom mooy chamsul hidaaya nee na njub boo demee ca njub moom mooy njobbaxtal la moom rasulallah waaw waaw yemu ca tamit moom mooy leer bi nga xam ne laamian wa diyaau laamia moo leeral àdduna moom yeneen bi ndax wax na ne bi mu ñëwagutoon dara yépp a lëndëmoon bi mu ñëwee nag la yépp leer wa nuri kalaami alladi malatta bihi kawnaka alxaayita bi amkinati almakaani waaw kooku mooy yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye mooy mooy wan nuuri wan nuuri saati waaw subhaanallah mooy leer bi bi nga xam ne moo feeñ fépp ndax koo gis rek jëmm yonent bi la nekk koo gis rek nit koo gis mooy jëmm yonent yàlla Muhammad waaw waaye yemut wa siraajul munir bokk na ci ci yim engagé moom yonent bi siraajul munir waaw làmp bi nga xam ne moo leeraloon lëndëm yépp mooy yonent yàlla Muhammad moo tax alladi bada bada allahu shafaahu shafaa xayaati wa xaraja al naasu min az-zulumaati ila an-nuur xam nga loolu rek dafa doy ci nga bokk xeet fekk ñëpp nga bokk ci xeetu yonent Yàlla Muhammad fekk ñëpp ci lëndëm yuxrijukum min az-zulumaati ila an-nuur waaw ki la fekk ci lëndëm nga xam ne da doon làmbatu rek mu ñëw wan la ba nga teg sa bët te yonent bi lu la def dafa fekkoon cedd gu bëri fekk ku ne di def lu bak ñépp di jaamu bakkan mu ñëw rey bakkan indil leen yàlla yàllay kese moo tax yuxrijukum min azulumaati ila nuur bu ñu génne ci lëndëm yóbbu ñu ci leer leer gi mooy la ñu jëm jaami suñu borom xam ku yàlla bañ a jaamoole la yàlla ak doomu aadama moo tax moom innaha zaatul muhammadiya moo tax zaatul nabiyil karim moom moom yàlla mu wax ko ci alquran yuriduuna li yutfiu nuurallah bi afwaihim te yëgul na wallaahu muttimu nuurahu yàlla leeram ki ko mottali mooy yonent yàlla Muhammad yuriduuna li yutfiu nuurallah dem nañ ba yaakaar na yàlla dafa bindi àddunaam nii rek teg pour ñu ñëw fi rek pour fo wala ñëw rek pour caaxaan yàlla ne ëpp ngeen loolu ndax nit ku ne dama ko def pour ma représenter ma ci kaw suuf may nekk sama sama ambassadeur inni jaayilu ko fil ardi xalifa waaye li tax ku mën na bil xaq comme nag da nga nekk kii représenté yàlla ci kaw suuf war nga am neneen noo mel ba ku la seen ci pénc mi bu naroon def njaaxu mi jub jéem ci loolu jàng ci jukko yonent bi la sallallahu alayhi ndax wax nañ ne yonent bi kaana quraanun yamshi ne na boo ko doon sin mi nga yëg ne alxuraan buy dox la moom rasulallah ndax lu def boo ko demee ci alxuraan fekku ko fa waaw wa maa yantiqu anil hawa du yem ci waxam rek wa maa yantiqu anil hawa du yem ci waxu yonent bi rek même matetam yi muy doxe ba ci jëflanteeg mi yi muy jëflanteeg nit mën nga koo fiire wa maa yantiqu anil hawa amul lu muy def ci teewu bakkanam ba ci kaf ba ci kaf sang bi laa déglu mu wax ne daf doon kaf benn mag bu jigéen ñëw romb ko ne leen ah yonent mu romb yonent bi rek yonent bi nag leen yéen jigéen de yéen mag de mu ne ko ah, mag la ko wax mu ne ko mag bu jigéen du dugal janna lu ko mag bu jigéen du dugal janna na mère bi commencé di jooy di jooy nee na mu ñëwaat laaj ko rasulallah yonent bi naka ah, mag bu jigéen du dugal janna bi ñettee ñetteelu nag mu xam ne nag kii laaj bi intéressé na ko mu ne ko yàlla ko wax wa kawaa'iba atraaban wa kaasan dihaaqan nee na ku dee rek nekk meer ne na buñ lay dekkee la kawaayib ngay am jànq ngay doon xoolal boobu façon waxin moo tax wa maa yantiqu anil hawaa moo tax yonent bi yuriduuna liyutfi'u nuurallah bi afwaahihim wallaahu mutimmu nuur walaw kari al mushrik kaafiruun beneen bi moo ne walaw kari al mushrikuun waaw ah, mu ne kooku nag huwa lazi arsala bi bil huda mooy yonent bi nga xam ne yàllaa ko yónni yónniwu ko dara lu dul njub njub rek la ko yónni ci njub kum woo rek ci njub la la woo waaye woowut kenn ci bopp personnel pour boppam pour ñu jaamu ko ndax yonent bi bu woote woon pour ñu jaamu ko kon ñu fàtte yàlla ndax am na beauté bi am na grandeur bi mais xam na li ko fi indi waaw comme nag da ngay topp yonent bi da nga war a xam lu la fi indi sëñ Babacar ma ne kuy wéeru nag dangay ngay seetu ginnaaw borom dayo ya am na koo xam ne boo wéeroo ci moom bu dee nit la ala kulli yàgg-yàgg mu dugg bàmmeel mbaa mu dem feneen waaye yàlla moom maa daama rek du fi jug kon bàyyi xel ko baax na jéem a nag xool li yonent bi teg ñu nekk ca comme moom lañuy ñuy topploo moo tax wa diini li yuzhiru huwa alladi arsala rasulahu bil huda wa diini al haq li yuzhiru ala diini kulli walaw kari al mushrikun fa ñëw fedd li njub ak dëggu yàlla donte dañ ko bañ ndax ñi bañ moom di yàgg-yàgg dañuy continuer bañ du fi jug bañ weddi du fi jug contre nit du fi jug adversaire ak nit noonam du fi jug yeneen ci bi waxoon na nag bu ngeen demee ba mu jëntal jamono ñaar yi bu ngeen ko bàyyee xel rek sonn seen jamono ne na kuy bàyyi xel nit ñi ne li nga bëgg a def doo ko def walla wax buñ la wax nga delloo ko ne ku bëgg a yegg doo ko def ne na kon la ca nekk bu ca bu jamono boobu ñëwee lay farata rek def ko xoolal lay farata rek nga def ko beneen beneen ba mu ci wax mu ne fa hada nuurul azim allazi faada ala alaalamin bi risalatihi mu ne leeru yunt yàlla Muhammad nag nag fii rek waaye mbooleem aalam yàlla am yëpp feeñ na fa waaw ñëpp ko xam ñëpp a ko xam yal nañu yàlla nàmpal ci weenu yonent bi sallallahu alayhi bu ko defee rek du teggin kilifa ñëw ngay wax ñu ko doon ci ndigalu imaam rek ak ndigalam ci leen doon lii fantoo ay ñun miinuñ yi am na koo xam ne boo ko xasee miin di déglu kàddum lu la waaye waxati du la saf da koo sagar rek di ko xool waaye am na koo xam ne boo miinee kàddum miin ay orientation lu la nit waxati rek daa sagar rek waaye xam nga ne mburu ak beñe bokkuñ wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalina sayidina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ixsaanin wa imaanin wa ixlaasin ila yowmi tanaal wa radiallahu an saaxibi alxatmi almuhammadi rabbaani abil abbaas mawlaana cheikh seyda ahmada tijaani radiallahu taala an mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp li may njëkk a wax fii bëgguma fi désordre man woote wu soxla wu may taalibe te yàlla bu ma ko am man taalibe laa taalibe lu muy doye taalibe man dama soxla taalibe man lu may doyee taalibe lu ma koy doyee soxlawuma ko te yàlla bu ma ko am na leer ci boppi nit ñëpp man soxlawuma ay taalibe te yàlla bu ma ko am man taalibe la taalibe du taalibe man taalibe jàmbur laa taalibe cheikhul haaji abdul aziz la njobootu seydul haaji malik la waaye ñépp laa bëgg nag unanimité ba ci ñu dul jullit sax bëgg naa leen animiste yi sax bëgg naa leen ñi taxaw ne yàlla amul sax bëgg naa leen ndax sama yoon newul ci ñoom yàllaa leen bind lasta alayhim bi musaytirin luy sama yoon ci ñoom ki leen bind moo leen res lu mu defanteeg ñoom ëllëg sama yoon newu ca ndax man sax xaw ma lu muy jëflanteek man waxuma laa keneen kon li mu ñu sant nañu ko jéem moo di walla xadd karam naa bani aadama wa xamal naahum fi lbarri walbahri wa razaqnaahum min at-tayyibaati wa faddalnaahum ala man mimman xalaqnaa tafdilan loolu la ñu yàlla sant ci kuñ bind ci kum bind rawati nit kon nag su fekkee man jéem naa jox ñëpp orma waaye waay buñ ma joxul orma yi nañ ma bàyyeeg sama yelwaan fii yar ak rek laa fi bëgg kuy wax nañu ko déglu ak ku mu mën a doon man mi koy man mi koy wax joxe naa exemple du dama ñëw toog toog di déglu ndax lan dama tardé dama ñëw julli toog di déglu su arrêté wutoon du àddina du yàgg ba ma ne ko noppi dama koy déglu ba mu jeexal ndax dama ko war a déglu àddina ku warul dëglu amul ñépp a war a déglu loolu la yàlla sant sa nuqri'uka fala tansa wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u l-mu'minin wa dhakkir in nafaati dhikra moo tax sa yadhakkaru man yaxsha man yaxsha nag la wax man yaxsha la wax sa yadhakkaru waaye man yaxsha ku bokkul ci xaashiuuna yi mënoo ragal yàlla ku bokkul ci xaashiuuna yi mënoo fàttaliku yàlla moo tax mu ne wa sa yadhakkaru man yaxsha soo ko defee ba noppi nag moo tax wayet yee jën na bu hal ashqa yal nañu yàlla defal sutura ñun bu fekkee ne diine jii li ñuy def suba bi jant bi so joxuñu yar joxuñu teggin soxlaatu ko léegi bi may ñëw rek laa koy wax ki ma àndal bokk na ci li ma tàrdel ndekete li embouteillage bi ci yoon bi yëpp benn waaye taxaw rek ne woo dafa mer bi sama chauffeur moo mujj dox xanaa dox na su ma bañul fenn ay cinquante cinquante mètres cent mètres door a gis ne moom la mu dem neexal ko ba mu dégager dafa dégager rek oto yëpp di dem fa benn gendarme buñ jigéen ñëw yem ci bu fekkee liyee Sénégal nañ bàyyi gàmmo yi nañ gàb bàyyi conférence yi nañ bàyyi lépp lu ñuy waaraate nañ ko bàyyi gis nga réew mi ku mënta defar nit ñi fexewoo ba jikko yi jag da sonn waaye daraay réew mi du baax daraay senegal du baax fekk lii ma gis changé wul nañ dem réew yar ak teggin na ko yor nit ñi buñ yaruwul amuñu teggin innamal umamul axlaaqu ma baqiyat fa in humu zahabat axlaaquhumu zahabu innama al umamu l ma baqiyat fa in humu zahabat axlaaquhum zahabu nañu am yar nañu am teggin nañ ormaalante waaye senegal kenn ku ne loo wax rek mu ngay fuuftandiku kenn ku ne mu ngay fuuftandiku boo ko nee sax sa bët bi suuf a ngi ci mu ne danga ko xeeb bekkañ yow nekk taalibe maam borom Touba bu la yaratul nekk taalibe Seydi Hadji Malick bu la yaratul nekk taalibe Cheikh Seydi Ahmed Tidiane bu la yarul waxuma sax yooyu nekk jullit rek bu la yarul lu lay mën a te yar ci kaw suuf ndax balaa nga naan naam ne fa ak njullit moo jiitu tariqa amul kenn kuy nekk ci benn tariqa lu dul da nga nekk jullit ba pare kon ku dul jullit kenn soxlawu la ku dul yàlla mi la bind yàlla mi la bind nag bu la soxla ñun orma lañ la yoreel moo tax ku dul jullit nga war ko ormal ah. nañ am teggin waay nañ am yar nañ am yar nañ am teggin lillahi wa rasuli nañ am yar nañ am teggin nañ am yar nañ am teggin mooy tax a yegg ci yàlla mooy tax a am yàlla yii taxul a dem fenn julli li muy rëy rëy rëy bu defaratul sa jikko julli jëriñu la tus ndax li ngay wax ci julli ak gest yi ngay def ci julli yépp pour jub la ba ca jiitu mooy dina siraatal mustaqim yaa ngi koy wax ñaata yoon ci bis bi ràkka bu ne di nga ko wax benn yoon soo naafilaa di nga ko wax te benn istiqaama amut ci yow lu la julli jëriñagum dara waxuma la ak weeru koor waxuma la ak aj màkka waxuma ak azaka yooyu yëpp pour nit ki baax dong la jëriñul yàlla dara bu ñépp àndoon di mooy yàlla ba yées firawna du wàññi dara ci nguuru yàlla gi bu ñépp àndoon di jaamu yàlla comme ni ko seydil wujudi sallallahu alayhi di defee du yokk virgule ci nguuru yàlla gi ndax yàlla li am am na ko ba noppi ba mu koy am dara amul moo tax yàlla ba muy nekk yàlla di doon buur am nguur booba bindul dara moom rekk a fi ne woon boobu dara amul moom rekk a fi ne woon nit ñi dañ leen jàngalaat tawxiid bañ xam koy yàlla yàlla du benn waay booy romb fii ci mbedd mi rekk jox ko loxo yàlla ëpp na loolu bu bu ñu xoolee ni àddina bi di doxee ñoo xam ne am na borom ku xool ni àddina bi di doxee rek nga xam ne àddina bi am na borom ndax liy déroulé ci àddina bi neexul kenn te wolof nee na lu yëngu lu ne la ko yëngale ko ëpp doole li am Sénégal neex nañ du maa ngi nii di jàmbat injustice bi fi ne ak indiscipline bi fi ne du maa ngi nii di ko jàmbat boo demee France ñu nga ne la di mars waa kër docteur yaa ngay mars boo demee Bolivie seen seen président ba daw na Hong Kong ñaata weer ñu ngi ci problème Turquie ngi nii Israël Palestine Iran ngi nii di yokk seen marchandise yëpp ndax jafe-jafe Irak moom yàqu na États-Unis nga ne ñu ngi naan dañuy destituer Trump wala duñ ko destituer ñoo xam ne ko naa dina bi am na borom ñi nekk ci tumbaxtal la sax amuñ jàmm ña nekk ci cumbaxtal ga sax amuñ jàmm milliardaires yi sax amuñ jàmm xamoo milliardaire bi sax yow mi amul dépense yaa ko tane ndax la neexee ta jaaxaan ci sa taatu garab yéey sa gerte caaf naan sa ataaya te moom sañu ko dëgg la wala dëgg bu la neexee doxee pikin bi géejawaay yoonu kenn newu ci kenn soxlawu la te moom sañu ko waaw euh, bu la neexee toog ci mbedd mii di waxtaan ba jant bi so kenn du la ne ndong sa te moom sañu ko kon li nga am amu ko ku xeeb sa wërsëg rek di baadoolo waaw ku xeeb sa wërsëg rek di baadoolo kenn ku ne la nga am moo tolloog yow gere ko rek kenn ku ne la nga am moo tolloog yow gérer ko rek yàlla du juum du jaawaatle ku nekk lam la jox rek loolu nga mérité woo <laughs> Eh, du caaxaan yàlla ku ne lam la jox moom nga mérité woo de te soo duggoon ruq laaj ko lu tax nga def ma lii bu la ko waxee nga ne ko yokk ko ndax di nga xam ne lam la teg lu tuuti la ci lem la waroon a teg yërmandeem rek wa rahmati wasiat kulla shay'in ilman yàlla nee na sama yërmande ëpp na leen waaw sama yërmande ëpp na leen lu ngeen xalaat sax sama yërmande ëpp na ko waaye yërëmtalu nag baax na waaw ah, yërmande lu mu bari bari borom yërëmtalu baax na de hmm? carno lii yërmande lu mu bari bari borom yërëmtalu baax na xool ko rek buñ ne président Macky Sall ko neex deret la ah, bu ko saaga de hmm? rawatina nga ñaan ko audience ba mu la nga wax ko lu bon ndax di fa génn ah, mu nga mooy ñàkk teggin yi ñuy def ak ñàkk orma yi ñuy def yépp yàlla lañ koy def moo tax mu garaw yàlla la recevoir ba nga ñëw nga wax ko lu bon mooy yàlla goo gis noonu la tolloon yàlla recevoir la amoo loo koy wax lu dul saaga ko loolu la mooy yàlla di firi parce que li ngay def yépp kàttanu kan la ba mu la koy jox looloo taxoon mu jox la ko kàttan li nga am bay doxaan ndoxaan moo moo taxoon yàlla wax la wala moo tax yàlla bind la kàttan gi nga am bay sàcc sàcc boobu la la yàlla sañ santoon pour nga toog bi ñëpp tëdd nga tëb kër jàmbur yi loolu kàttan googu looloo taxoon yàlla jox la ko xel mi la yàlla dënk est-ce toog sa biro di dugal chiffre di génne di dugal chiffre bi di génnee ba wàccaale cinq cent mille yow moo taxoon yàlla jox la xel mi ñu ne comptable nga waaye di am comptable boo xam ne moo lay comptabilité waaw laa yugaadiru saxiratan wala kabiratan illa ahsaaha yàlla ne comptable bu mag bi buñ toogee ba may régler maag yow <laughs> mu ne balance bi ma lay tegal day neex neex boo xam ne boo xusee kawar def ci sax mu indi ko waaw benn kawar sax mu ne boo xusee teg ko ci sax mu mu mu balance ndax neex maa li hada alkitaabi laa illa axsaaha jàmbi ne yàlla lii lan la yow sa téere bi bàyyiwul dara fàttewul dara lu gën a tuuti sax indi na ko yàlla ne ko da maa ñoroon te nga fàtte ne dama laa ñor ndax maa la bind jox la kàttanal nga jaamu ma nga lang di cëppi cëppi buñ ne ayaala salaati nga ne non j'ai d'autres j'ai d'autres choses à faire buñ ne allahu akbar nga ne non ah yooyu am jot la waaw ida wa ida qaamu ila salaati qaamu kusaala yuraauuna naasa wala yazkuruuna wala yazkuruuna allaha illa qalilan muzabzabiina bayna zalika laa ila haulaai wala ila haulaai nañu bàyyi xel yàlla wa fi anfusikum afala tubsiruun jarul sax di xol kàttanu yàlla fu mu nekk soxlawu ko toogal rekk ne tekk bul jàpp bul julli waxuma bul julli de boo jullee ba pare laa wax bu la neexee sa bul yor njàpp bu la neexee bul def dara toogal ne tekk rekk xool sa bopp ci sa wewu baaraam bu tànk ba ci sa catu kawar ba ca sa kaw bopp nga xool li fiy dox yépp ndax yaa koy doxal nga xool bu baax nga dalee ci sa cati baaraam ne barki démb rek semaine bi passé rek laa ko dagg saxaat na ku ko saxal wa fi anfusikum afala tubsirun barki démb rek laa dagg weew yi xoolal saxaat na xaat kañ la fi sax ku ko saxal nga yëg ni am na ku ko doon puus te gaañu la fen te yow ba nga koy dagg sax amaat na juum nga ba laal lay dund mu nàcc waaye moom ba mu la koy saxalal gaañu la fenn yëgoo ko sax ah waaw nga continé bul toog de bul taxaw nga ñëw ba ci oom yi nga ne ah, xoolal maa ngi bank sama oom yi pourtant te dammul kan moo ci def graisse graissé ko ba bu ma bankee mu banku bu ma tàllalee mu tàlli ku def graisse googu te oto baa ngi nii rek su amul graisse léegi ma woo mécanicien mu graissé ko kan mooy graisser sama tànk bi ba duma ko yëg su ma tàllalee mu tàlli suma ma mu bànku nga continuer ci ndigg li nga ne xoolal maa ngi toog mu jekk ba bëgg a dee su may jóg ne bërét te sama bàyyee nga ne la barki démb rek lii ma mën mënoon na ko tey bant la yor kaay leen jàpp ma yëkkati ma teg ma fële te barki démb rek paa bi mook yow a bokkoon daraja bëreet la daan def yenu benn saaku ceeb daw ak moom tey buy jóg ne la jox ma sama yet wi yow mi ko koy jox tuuti rek sa wàll lañ lay xaar hmm? waaw nga ñëw ci loxo yi yàlla moom bari bañ bañ na ko sax bi dafa am fayda tabbat yadaa lu muy wax sax loxo lay jiital ba muy xas abi lahab sax loxo ya lay jiital waxut tabbat waj waxat tabbat rijlay waxat waxul tabbat sadru tabbat yada bi ma qaddamat aydihim yàlla lu muy wax rek loxo la ciy jiital mooy responsable bi gën a rëy ci lim bind moo tax bi ma kasabat aydi naas zahara al fasaadu fil barri lu tax bi ma kasabat aydi naas lu tax waxul arjuli naas waxul rasi naas waxul fammi naas waxul ayni naas bi ma kasabat aydi nga xool li la loxo di jëriñ su benn bi daggoon rek nga balancé léegi booy dox benn nii ngay def looy def dootut yomb sooy wax sax geste yi ngay def sa loxo mooy cerveau bee koy commandé geste yi ngay def dafa bokk ci intelligence te day yombal communication moo tax yàlla tudd loxo ba muy xas abi lahab mu ne tabbat yada abi lahab li ëpp njëriñ ci nit mooy loxo nga xool sa loxo yi li nga ciy jàpp par jour ak lim lay jëriñ nga ne ku ma ko may ay eh waaye ku ma may di nga xool ci ko ko amut te gënoo ko ndey gënoo ko bàyyi ka la ko ka ko ko xañ moo la ko may hmm? waaw nga ñëw ci dënn bi nga xam ne mooy markazul fu fuhumi wal maani alam nashrah laka sadrak dënn mooy markaz huwa markazul fuhumi wal maani liy doxal nit ba nit nekk nit yépp ci dënnam la la alam nashrah laka sadrak xol fu ne xëtër fu ne yi doxal nit ba nit nekk nit yépp ci dënnam la ne hmm? waaw te solo nga xool li ciy fonctionné yépp kan moo koy doxal bi mu ko ci kaste ba tey muy màgg ndànk xol bi di màgg ba yem fi mu war a yem ñaata yoon lay pompe di pompe deret ji di ko filtre ñaata yoon lay battre par jour nga xool xol bi fonction bi mu yor moo ëpp fonction ci li yàlla bind ci nit moo tax bu taxawee rek nit ki dee buy taxaw rekk nit ki de parce que moo ëpp fonction xol moo tax xol la yàlla di waxal moo tax mu ne xajuma ci asamaan li muy rëy rëy juróom-ñaar xajuma ci suuf li muy rëy rëy juróom-ñaar waaye xaj naa ci xolu doomu aadama bu ma gëm ngëm yàlla ci xol lay nekk moo tax Serigne Cheikh Tidiane Sy ne boo ko fa defut rek kàmb la goo xam ne day vidd dara mënu koo feesal lu dul yàlla loo fa def dootul fees ngëm yàlla rek a ko mën a feesal nga xool ne sa xol bi bu taxawoon vingt quatre heures rek waxuma la sax vingt quatre heures deux heures de temps rek léegi nga dee ñaata yoon lay pomper par jour tubaab yi nag am nañu itte ba ci lañ chronomètre montre ni xol di dóoree la montre di doxee ñu boole kook bu jant bi doxinu jant bi mook doxinu xol sorewuñ walladi jaala shamsa diyaan wal qamara nuuran wa qaddarahu manazila li taalamu adada sinina wal xisaab doxinu jant bi ak doxinu xol sorewuñ moo tax tubaab bi jël ni ni ni ni xol di doxe baataree noonu la montre di doxe seconde montre noonu lay doxe mu jël aiguille bi nag branché ko ci doxinu jant bi mu jox la nit ak aalam bi ndax bu duloon nit jant du am important nga jóge ci xol bi ak dënn beeg butit yi nga xool butit yi butit dafa am yu mag ak yu ndaw butit bu nekk ak fonction te benn du jaxasoo ak moroom bii ndox mi rek lay segg bi lekk gi rek lay segg wa fi anfusikum afala tubsirun boo naanee mu dem ci bii nga naan mu dem ci bële am na lu koy filtre seet li ci yaram wi soxla mu tas ko ci yaram wi usine la usine bu nekk robo ba koy doxal mu ngay dox boo naanee mu filtre ko lii dem ci tuur ndox lii tas ci yaram wi nga lekk mu filtre ko lii dem ci deret ji lii dem ci sébbirit mi nga dem ko gannaaw kër yooyu yépp ki koy doxal machine bi koy doxal benn bu nekk ngay fonctionner ci ndigalu yàlla nga xool sa biir bi li fi nekk ci ay matériel moo ëpp oto bi ngay dawal nga xool loolu ku koy doxal ci kàttanu kan lay dox nga xam ne moo moo ci dara lu ci taxaw rek wala mu am tuuti ayib rek nga seeti docteur te docteur ba tanewu la kat boo yeggee lu lay wax lu lay metti su ko xamoon boo yegg si mu ne la nangam la waaye ci li nga koy wax ci lay sukkandiku loola dal jël bigam ak fëyam noo tudd xamul sax noo tudd bi nga ne ko Chérif Ibrahima maa la deytaali wala Sidi Maxtaar Kunta waaw noo tudd Sidi Maxtaar Kunta ñaataat nga am soixante-dix soixante-cinq ans foo dëkk Thiès moom xamagul ci yow dara foo dëkk Thiès lu lay metti man daal bu ma dama gis ne bu ma lekkee day yéex rees nangam nangam nangam nangam mu xool ca lam jàngoon ca université xalaat bu amee tuuti lu ko lëntal mu ubbi benn benn benn téere xool waaye day njëkk a vérifier yam jàngoon bay ne bañ ne ko docteur mu xool ca loolu àpp pare ne lii lii la war a doon daldi moo tax muy bind ay garab yu bari su xamoon lan la benn garab rek lay bind ne la demal naan ko te wér Cheikh Tidiane yow pharmacien boobu yow lay waxal bu ko xamoon benn garab dong lay bind ne la bii baax na boo ko naanee suba nga wér suba ci midi nga wér su xamoon noonu lay def waaye ñàkk xam moo tax daf la naan jëndal bii ak bii ak bii ak bii muy ñetti garab bii nga naan ko midi àpp pare rek yàlla ne ko dandul xamoo dara ma roof sama yërmande rek ci li nga bind moo tax Alaaji Abdou Aziz daan wax ne doktoor du wéral yàllaay wéral mu ne kon yàlla miy wéral nag yàlla bind wér ci loxol doktoor yi ba luñ faj mu wér moo tax maam Ibrahima mi yeewu wa iza maritu fa huwa yashfini maam Ibrahima moom dafa ne man dey bu ma feebaree yàllaa may faj bàyyi laa jibu saaxo mosul dem hôpital falaxeeg naa si la doy loo woon mosul dem hôpital bàyyi bu saaxo mii ngeen gis mosul dem hôpital bu ma saan feebar rek fa la xeg si lay fajo moo tax keroog bi mu feebaree ba gaa doom yi ne ko ci xam-xam bu wér laa ci am nag doom yi ne ko pap bàyyi ñëwal la médecin bi mu ne yéen a gëma di yàlla ibu di fajoo fale xeg naa si ba toll fii ngeen koy wowal docteur lu may doyee docteur ki ma daan faja fi ne yéen xamu leen dara damay dem ngeen nekk fi naan docteur man ma xam fi ma jëm waaw <laughs> kooku xam ne fi mu